Gambia asalaamaaleykum àddina nuyu naa képp kuy seetaan Sahel Network TV Aïcha teewaat si kër gi rek bëgg waxtaan ak yéen si wàllum loo yëngu business profile laa wax kon nag képp ku fi ñëw rek dama koy profilal business am di nuyu kilifa diine yee kilifa aada di ñaanal ñu ci lali hôpital yi këli yàlla yëkkati leen ñu jóg doxi seen soxla suma gan bi nag mu ci biir kër gi dama koy bàyyi moom mu nuyoo rek wax leen moom mooy kan laata ñuy dugg ci questions yi asalaamaaleykum nuyu naa la. waaw feenaal bu baax a baax baax. macha allah uh, ya. waxal ñi seetaan kan moo tey kan moo o tey ci bir kër gi. waaw ak nan nga xamante ne loolu nga fi toog si loo yëngu. waaw comme tey moom digga digga kontaan naa trop si li mm-hmm. ma ñëw fii tey comme maa nuyu suma mbokku Gambien bi mm-hmm. man la seen jërbaat seen doom seen raga amat seeni la yee mu ngi digga Cogistan foofu la nekk liggéey foofu la wax sa bopp bi nekka soo tey ma dama fa bëggoon ñëw pour wax si suma xam pour Gambien ba xam ma may kan. macha allah incha allah Amath dalal ak jàmm fii si sa Sahel Network TV ñun tam ñoo la gën a kontaan comme que ñoo nga uyu si oote bi nga xamante ne loolu lañ def. Mm. léegi dañuy laaj Amath ci lan la buy yëngu. waaw Amath moom si fa ñu coo toogu la mu nekk nekk di yëngu. Mm-hmm. maanaam di defar ay sofa di jaay yow kon toogu yi ngay yu ma gis kon yooyu yëpp yaa ci jaar. <laughs> waaye toogu macha allah te <laughs> yow Amath lan moo tax nga gën a dugg ci wàllum liggéey toogu. waaw comme liggéey toogu daf ma nekk xale moom comme dama am éem ne comme toogu bi nii si foofu laa war a amee sama effectif mhm. si métier bu ma nekk di dugal nii parce que éne boobu dama ko éndoon sama boppa te right now yàlla moo siy dimbale ba tey mu ñu gis lii tey mhm. depuis kañ nga commencé di liggéey toogu waaw liggéey moom maa ngi ko commencé mhm. maa ngi ko 2011 ba léegi yaa ngi yëngu ci wàllum suufa. waa maa ngi yëngu ci wàllum suufa. ok macha allah ban sa carpentry shop bi nekk. waaw carpentry shop bi moom mu ngi si mu ngi cojo stand opposite Sobeya. si mhm. jimmi foofu noonu foofu laa nekk si biir kër bi. Mhm. yaa foofu laa nekk di joobee. léegi naka nga commencé business bi nii. comme business bi. Mhm. comme comme like commencé bi dafa nekk loo xamante ni daal nekkul yomb. yaa it's very hard for me. te moo ko doon jàngatam lu nekk laa dëj. waaye comme suma dom comme suma parents yi suma ñi yaay suma ñem papa dama woon a muñal loo muñ lu nekk mu jéem waaw demoon naa ba tay ne ma ne damaa bàyyi gis nga waaye comme comme laay dama dégg seen kàddu kontaan si trop moo tax teem ak si fu ma ak si nii dama lo gërëm gaay bu baax a baax loolu nekk na lu am solo comme que soo déggee wax yi waajur rek yàlla dina la jàppale si li ngay yëngu léegi yow naka nga dee jotee sa supplies yi pour mun di defar say toogu waaw comme supplies yi daal comme yow tey tey nga toog yow ma dugal suma suma picture to Facebook nga bëgg ko ma a ko WhatsApp nga gis ko bëgg ko so comme laaj suñu waxtaanee dama laa wane ne comme man daal teg jaay mu ne liggéey teg jaay comme order laa dee gën a am. ñu mm-hmm. ngi liggéey teg jaay. Mm-hmm. comme dama laa wane ne comme. toogu yi dal comme maa ko fi amé yow su dé bëggoon nga ko mun nañu waxtaan ci price ñi d'accord nga indi ma advance dama liggé ci prêt nga indi lu des yow comme kula andi lon toogu mhm. exactly num la ko waxé non ngay defee wala ngay yu sa bi bop waaw inshallah comme mom dal mom mo xool nak la ko bëggé mo mhm. jëbé bu noonu su dé dafa bëgg ma yu ma yu suma idea bopam ma yokk ko fa mhm. na ko fa def su dé mo na dafa bëgg dafa bëgg mom on on idea am appliqué mu indi yé na ko fa dafa ko tégal mu tok ci macha inshallah insha lu mu bëgg rek na leen jàmm <laughs> waaye yow nga ne dooy liggéey teg order nga dee gën a liggéey xanaa order bi moo ëpp xaalis ngay liggéey di teg non non non nekkul loolu sax comme dama gis ne daa ah loolu la kay kon lu tax nga <laughs> comme Gambien bi mhm. yow mu ngi toogu loo xamante ni comme xaalis bëri daal si toogu bi nga teg ko si market bi nga ne lii laa koy jaayee mhm. soo yow soo ñëwee nga ne thirty thousand kii ne dafa ñëw na five thousand ou ten thousand fifteen thousand mhm. so xam nga loolu moom moom siyaage da nga discours ci tek jaay wow. you understand so ñeneen ñi ñoo do space di bëgg nga wolem pra ñu d'accord so gaay ñew pour yow nga liggéey leen order mhm. yow iya, naka nga dee liggéeyale nit order ndax su la joxee da ngay defar ba pare mu fay la wala da ngeen waxtaan ba pare mu sooga jaay toogu waaw comme lay dañuy waxtaan ba d'accord si price mhm. after mene ko man suma advance lii la fi laa des stade suma advance mhm. so da nga gina na liggéey toogu ba pare di ma la laaj waat so si toogu période so balaa nga koy da nga waram a am ma jëma suma xaalis. jéem a noonu laa lay jawee. par bu koppar bu ñëw toogu du kini ni kede nga nekkee di dundee ak client yi nga xamante ñu ngi ñëw foofu noonu mais pare di jenda toogu yi. wa comme client yi comme ma bu baax baax comme ñoo xamante ne customer leen. Hmm. yeah I really appreciate I know. Hmm. because of comme kom tamit comme la si gars si gars yi tries ma toogu yóbbu ko. dama de boole dama de boole mo people yoo xamante ne dan danaa leen Mm-hmm. so loolu moo tax comme suma liggéey yow mu gën a advance bu ko tax nga comme dama ne ko xamante ni maa ngi sori ma tur sori na waaye suma jëm a àggul foofu noonu. yow mm-hmm. dañ na gën a try rek. Mm-hmm. suma ko samay maa lañu gërëm bu baax a baax you customer yi naxa de deret yi na nooy nekk di dundee ñoom parce que xam nga customer yu mel ni man moom dañ bëri wax dañuy ñëw di kebetu rek. non loolu la wala su ñàkkee xaalis ne la ma lii ba pare ne déedéet waxuma la woon. non la loolu moom su dee na la xaalis yow muy liggéeykat da nga xam ne xaalis la la jox. so yaa understand ni mu si. ngeen dem ci noonu laa demee comme comme like tey nga ñëw si man nga ne ma léegi su ma liggéey préwul ba this time su ma la waxee la moo tax préwul soo ma understandee. so loolu du nekk problème about it yaa mhm. sa man na dina try ñu sol suma digënt ak yow ba ba ñu ñaan ono sanante mhm. so ñu jappalante ñu ñëpp bu ko xam nga rek comme xaaliss nekul dara ya yow nga am nit mo gën dal comme xaaliss bari sa loxo you know yeah mu la yow ñoo di liggéeyal uh, sa ay rakkaleen wala da nga employ ay youtube yu mel ni ñoom ñu mel ni yow ngay liggéey ak ñom waaw comme boy bari dal ñoo xamanteni dañ dee gis suma job ou tamit ñoo xamante ni seen parents dañ day gis ma jo bëgg ma jàngal seen doom métier bi mhm. yee te ñooñu am am naa si many many people ñoo xamante ni ñooñu seen parents yi ama indi seen doom mhm. pour leen jàngal seen métier bi mhm. so am na tamit su ma boo yoo xam ne dama dee toog ak ñoom soo dañ dee comme dañ dee kontaan su lu ma nekk di liggéey daa may leen booy lii métier la métier boo xamante ni soo si xasee dugal sa bopp bi soo nekkul loo xamante ni da nga koy rëccu yee loo xamante ni yow la xasee ba dugal rek dugal na so da nga tracé la bim bes nga try nga bu ko da tukki bi di time la mm-hmm. si yalla dogalee da nga dam nga dam si si dogul na da nga dam try nga am fo jaba mu ngok si lo la bëggo na ñoo sa lan nga xamante lo nga ngay sa morom yi nga xamé ñu ngi bëgg dugga sa business xamul nu ñuy def ak ñoo xamante tam ñu ngi tok jàppuñ ci dara wa comme man da sama morom yi goori dal comme sama góor sama morom góor yi gambien si comme maa wax ñu xamante ni daal si lee nekkuleen di jàpp ci dara comme mm-hmm. trailer ngeen jàpp ci dara bu ko sax xam nga rek yaagut mm-hmm. yee soo ko muñee daal am ko you know. waaw sa nekkul loo xamante ne si longue li nekkul lu jaaga. te du nekkut sax comme ku xëy rek tekki foog nga am. ci loolu jaar jaar jaar foog nga mm-hmm. suma jaar jaar moom dëgg métti mm-hmm. na trop sax. macha allah métti na trop. naxaat naa dégg nag. Mm-hmm. te jaar naa jaar jaar métti sax. parce que xam nga comme temps mën a jàng métier. ko man ak man ak sama daal bu ndaw ñoo dëkkoon mhm. Tugeera soo sama daal daf ma joxoon sama daal bu ndaw soo man si loxoom laa nekkoon soo moom moo ma boolee suma boos ku ma jàngal métier maa ngi koy gërëm di ko sant nag suma daal bi bu ko def moom tey moo tax comme loxoom tam ah, bokkoon na si daf bu ko def moo ma jàngal ko xamante ñëpp ñu ngi woon too jobuñu mhm. mhm. soo maa ngi koy gërëm bu baax a baax na loolu nekk na lu am solo parce que liggéey sax soo see dugga bul seet yow si koppar bi seetal loo xamante ne moo laa njëriñ. waaw loolu moo nekk yoon sax comme job bi daal yow bul bul xool xaalis. Mhm. man temps mën a jàng mi su ma la wooyee ne comme mandat julli nii damay toog. Mhm. comme julli dafay jot nii suma boos du ma lay dara. Mhm. ma sant yàlla. toog xam ne daal nit ki loo muñ lu nekk mu jiyee. yeah foofu laa de gëmee daal you know. Mhm. moo tax mag yi dañuy wax naan ko muñ muñ saa yoo muñee rek di nga. waaw gis nga gis nga incha allah <laughs> eh, ñun ngeen mën a wax ne ñoo nekk sa main customer ñoo xamante ne every time yàlla ne defaral ah, sofa. Mhm. suma customer yi comme man sam one man Ablaye. Mhm. moom waa fii la. Gunjur. Mhm. waaw moom tuma moom tuma waaye moom jogoon naa ko toogu fi mu yóbbu ko fii ba Sénégal. soo léegi nag xam nga xam ne seet yoo xam ne dafa i building nii la day jaay. ñoom ñoo opposite mhm. si moom soo jaaree si moom su la waxee. Mhm. su dee gëm nga waxam. doo tegg waxam da ngaa ñëw a liggéeyal la. bu ko sax man si ronam laa jàngee métier soo xam na naka laa lay liggéey bu baax a baax. te ñun sax ñu ngi duggoon sa facebook page mm. eh, am na koo xamante ne mu ngi dugal foofu noonu sa toogu yi nga xam ne yooyu nga nekk di defar mm. ndax yow gis nga comment yi nit ñaa ngi lay luñ la nekk di text naan la comme good job yooyu noonu jot nga leen a tontu yeah jona ñu tontu man te dama ubla appreciate te comme demo demo moom trois du dee depuis five mm-hmm. ba nu may nerve three o'clock suma téléphone mu ngi ring up and down mm. mu ngi ring ba message yaa ngay dugal texte yaa ngay dugal fii ba Europe ñu maak comme ñi ma ñi ma congratulé son daal si liggéey bu ma nekkee di def mhm. soo ngoon ñu ne ma gën a yokk sama loxo daal yi no te plus ñu gën maa mën a help because of comme youth man bu mel ni man si young age comme mu ngi liggéey daal nañ ko gën a may idée yoo mhm. mhm. xamante a laaj foofu noonu yow lan yan ndimbal nga soxla pour jëmale sa liggéey bi kanam waaw comme comme ñoo xamante ni ñoo ma war a dimbale daal bëggoon naa nit jàppale ma bu baax a baax. Mhm. comme yéen comme yéen tey noonu tamit xam nga jàppale ngeen ma si benn boor. soo ñu bëri dinañ gis advertisement bi no mhm. te bëggoon naa tam ñeneen ñu bëri tam ñu gën si mën a jàpp ku gis lii daal mu gën si man maa jox air yi ba xamante ni. Mhm. daf maa yóbbu la si kanam. pour que léegi time bi xoj nañu. Mhm. da ngay wax ñi seetaan fan la sa place nekk. ak koo xamante ne bëgg na lay jot. Mhm. sa number téléphone ak sa Facebook page. waaw no problème waaw comme man moom sama place mu ngi nekk à Churchill's Town opposite Sobeya. Mhm. waaw soo soo ma soxla daal damaa mën a collé si sama ndama bi 31 21 662. ak sama affiche ndama bi 719 81 711. macha allah. comme like soo ma bëggee jot tamit si suma Facebook bi soo taabee ama seen rek du ma gis foofu tamit macha allah amal seen ak tëgg yu baax yi macha allah léegi amal comme que time bi nañu. léegi da ngay tàggatoo ñuy seetaan rek su ko defee nga mën a dellusiwaat fii sa xel. ñu waxtaanaat ak yow rek. non comme ñoo xamante ni ñoo ma nekk di seetaan comme maa ngi gërëm bu baax a baax. te nga xam ne seen doomu Gambie moo fi toog tey. bu waxtaan ak yéen nga xam ne doomu nekk di liggéey di scanner furniture amaatul. c'est ku ngeen mën koy jàppale daal ñu comme doomu Gambie bi ñoo xam na daal. ñoom ñi nga xam ne liggéeykat seen dëkk liggéey bi dem comme ngeen gën si jàpp daal bu baax a baax. yow kay jàmbaar na comme que léegi moom time bi xoj nañu léegi man tamit damay tàggatoo ñuy seetaan rek ay chalente walaatoon si kër gi comme nuñ ko faral di defee dañ ne loo yëngu lu ko yëngale la ko ëpp doole mm-hmm. kon nag dañuy joxe waa di daje rek ba beneen édition of the show don't forget your thumbs up the comments xam naa ne abal ma bu ma jàppalee rek views si dina gën a bari thank you so much